sénégalais di leen dóor ci yeneen sénégalais li soppeeku mooy yaakaar ni wax ni ay xale xam nga nit bu ànd ak xel nit bu ànd ak xel ànd ak sago du wax ay xale yu ndaw dem leen ngeen song ay alkaati du wax ay xale yu ndaw dem leen ngeen song brigade gendarmerie du wax ay xale dem leen ngeen song commissariat du wax ay xale dem leen ngeen di song ay këru responsable da dafa ñaaw nañ waxante deug dara mënu ko justifier. mais c'est bizarre. lu la jàmm la. Ele vai checar. parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça, nous, on, appelle tout le monde à aller là-bas. Arrête Arrête de provoquer le peuple sénégalais il faut nous comprenions que nous avons les moyens de faire descendre plus de 100 000 personnes, plus de 200 000 personnes, conquérir le palais de la République. kon nañu xool bu baax parce que Sénégal nous duñ fu ñu nous ay nit ak di nous tere seen droit loolu kenn du ko nangu su fekkee ne lu la respecté moo tax bañ a ñëwee yi taxaw naan bu ñu dugg ñaata ñaari oto yu topp côté bi nit ñi dañ leen fël romb leen dem seen yoon te loolu mooy yoon parce que ñun tooñuñu wutuñu ay jàmm la dox waaye nag ci fula ak fayda te ñun nee nañu duñu xoxatal wax naa ko du benn du ñaar bu ñu yeboo xam ni daal bu yàlla tàkk sànni ci matt moo gën jéem <laughs> mbokk yi nuyu naa leen monsieur le premier ministre sénégalais yi dañoo bëgg a xam lan moo tax bu ñu gisee tey police ak gendarmerie. monsieur le premier ministre sénégalais yi dañoo bëgg a xam lan moo tax journalistes yi bu ñuy def seen liggéey ci ay manifestations ngeen di xëcc seen i micro xëcc seen i caméra di leen di dóor comme ni ngeen dóoree Adja Ndiaye bu Dakar Actu comme ni ngeen dóoree ba mu xam feuse bu Bour News. monsieur le premier ministre gis nañ ay policiers ak ay gendarmes bu ñu jàppee ay nit leen di utiliser comme bouclier humain lu monsieur le premier ministre. Sénégal doit signer une convention internationale contre la torture gendarmerie day torturer police day torturer ki ko wax observatoire national des lieux de privation de liberté lan moo tax di torturer sénégalais yi ba pare ngeen camouflage yo xam yon ñaari yoon lay jaar benn bi da ngeen di torturer gaañ leen toj seen après ngeen dugal leen kaso ba ñu wér soog leen justice comme ça kenn du gis seen bi ministre de l'intérieur bi fen rek fen la mensonge d'état mensonge d'état di doomu Sénégal ba paré nan pa ka moko rey ñu autopsie du pas ka moko rey le dernier rey Ngor ba mensonge d'état monsieur le premier ministre lan montagne ngeen di nit après di police ay gendarmerie seen di saccager kër ki ci de gay bu Pikine pratique xamuñu ko Sénégal monsieur le premier ministre lan qui tax ngeen di ray ay doomu Sénégal Ngor biñ doona ak Fenen ba paré kenn du Moussa atté ñi da permis de tuer aux policiers et aux gendarmes vous les encouragez à tuer et à assassiner des Sénégalais qui votent des budgets pour acheter les armes avec lesquelles vous les assassinez lan moo tax am cette doctrine de maintien de l'ordre monsieur le premier ministre la justice sénégalaise aujourd'hui fait également du maintien de l'ordre en amenant systématiquement les militants de PASTEF en prison. Systématiquement, instruction. Bataille il y a 500, près de 500 détenus politiques au Sénégal. monsieur le Premier ministre, la police, gendarmerie, procureur, nous l'avons mobilisés pour Beykat Yidi Kher pour Ligue 4 pour Sen Payor, vous ne les mobilisez pas contre les ministres sàcckatu contre les directeurs de société nationale sàcckatu xaalis fi may daanelee ñaar la assemblée nationale dafa ñëw pour contrôler gouvernement assemblée nationale depuis septembre nous na contrôlé 20 contrôler milliards de dans ko dénk ndax kii Vous fii Le teg ko le USAID 18 milliards askanu Sénégal pour nous faire mortalité maternelle